Euh, ñu jël kàddu gi ci daje bi waaye dinañ ci ci ndigalu président Khalifa Babacar Sall ak conférence des leaders nañ ci sànni ay baat yu gàtt di wax sénégalais yi nii woote gi ñu woote la ci jubluwaay bu njëkk mooy waxtaan ak sénégalais yi ndax président xalifa Sall wax na ko léegi bi ñu defee seen forfaiture ba léegi déggu len conférence des leaders yewi Askan Wi addu ci boobu ba légui ñi ngi waxtaan ña ngay apprécier li nga xamné mo moo juddoo ci waxtaan gogou la am yéene ëllëg partagé ak Sénégalais yi loolu di objectif bu njëkk te jàpp naa ni objectif bu am solo la fas yéene ak sénégalais it ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yu réew mi toll te ne jafe-jafe yooyu danaka fukki at yu wees dara dañu ci day wanyekul. rek waaye wàññeekuwul moo xam li jëm ci dund bi ndax barki rek honorable député Aïda Mbodj di waxee bés bi mu defee forfaiture am ci suñu lis defe naa mooy samedi ci suba bés boobu ci 10 heures la yokk njëgu carburant bi essence bi te yokkute googu ci kanam lay jëm loolu yëpp nañ ci waxtaan nag ëllëg bëgguma ci dugg ci détails yi dinañu waxtaan ci situation wu droit yi ak liberté yi ndax képp koo xam ne nee nga d'accord ak Macky Sall moo xam ci léppam wala ci lenn ci ni muy doxalee da nga xam ni cible nga ci makisal Sall Cheikh Omar Diagne mi mu jàpp ci ay caaxaan yu kenn xamul ne ko rëpp ci kaso bi symbole la ci ndax ñëpp ñi tax xaw ne d'accord ñoog moom ci agenda LGBT bi nañu xam ni tey ñi ngi ci viseuram moom ak ñi ko ngemb ci bitim réew Non la nekkee ci benen ak benen gis ngeen ni ku fi nekkoon activiste ci juróomi at yi weesu fex nañ ba am luñ la tiñal pour mun la créer le dossier kon bu nit ñi japp ni acteur politique rek la concerné c'est-à-dire démocratie le Macky Sall bëgg a ci réew mi ci ban anam parce que suñu wax dictature nit ñi dañuy gis image yu yenn réew yi nga xamné parti politique amu fa. char de combat yaa ngi fi ku génn wax dara ñu duma la tëj la déedéet loolu mooy dictature bu flagrante bu gën a boo xam ne dafa fës mais dictature bëri na ay xeet fekk fu réew mi fu mu tolloon ci démocratie te ay conquête ak ay xeex ñoo andi ba foofu nga delloo ko gannaaw ba tey tey tey tey sénégalais bu nekk na laaj boppam lan mooy différence situation bi ñuy dund tey ak situation de doon 2011 Sénégal est tiit fi mu toll nii ni ñu 2011 Nous la ñu tiitee loolu rek un na recul am na fu recul démocratie am rek avancée dictature Amna. parce que ñaar yooyu faut la fu démocratie de gannaaw dictature def na pas fu démocratie avec demee kanam dictature de na gannaaw kon yooyu yëpp. lañu fas akris ak crise multisectorielle bi ci njàng mi ci ci paj mi ak ci yeneen ak yeneen loolu lañ ne dinañ ko dajale moom ñëpp nag waxtaane kook sénégalais yi ëllëg bu soobee yàlla ñu bëgg wax sénégalais yi ni au delà de tout li commencé euh, monsieur le maire Ahmed nit da ngay am dégg-dégg fi mu kenn amatul kenn ko xamné dina am xel ñaar ci ay nii wii nii non ñepp xam nañ ni léegi wii la mm-hmm. loolu lu fës la Macky Sall li dor tay moy mooy projet troisième candidature man duma ma wax troisième mandat parce que il faut que ñuy def différence entre ñaar buñu duggal ci boppam ni mu ndam am troisième mandat mënu ko am bu defoon ay pexem ba ne de ah, valider nañ candidature am it mënul am troisième mandat fii Sénégal loolu dafa war a leer ci bopp ñëpp kon nañuy wax troisième candidature fi mu ne nii li mu door mooy projet troisième candidature te fas yéene ko jàllale lu dul jaay doole nit ñi loolu lay commencé ma bëgg a wax nag ni bu dee sàggan nañu ba ëllëg manifestation amul nañu xam ni 18 mois yi di ñëw manifestation dootul am Sénégal. Non la simple mom day de bu du ko xamne ne xel bu muy ci dara manifestation dootul am Sénégal rawati manifestation opposition motax li conseil constitutionnel def c'est de la haute trahison saaxu ak ñimu andal lañu def c'est de la haute trahison c'est des délinquants de la loi voire conseil constitutionnel te tôt ou tard nag dinañu rendre compte def nañu seeni forfaiture dem barricade wu ñu jox leen ay garde corps jox leen ay avantages yu dul jeex jarul ñuy laqatu kenn du leen song kenn du leen dor kenn du leen attaquer waaye tôt ou tard ils rendront compte devant cette cette loi qu'ils étaient qu'ils étaient censés servir et dire devant ce droit qu'ils étaient censés dire professeur Ngoude Mboup dafa wax euh, Saddam Hussein Kerog Binkoy koy euh, exécuté dañ exécuté en même temps que au magistrat boo d'un ne Adam ko Il y a une gis li xew Tunisie parce que magistrat magistrats ay nit lañu il faut ñu delloo seen xel du nous lenn lu dul nit buy lekk ceebu jën di li tax ñu mën leen naw moy li ñu bokk ñun ñëpp te ñu voter ko muy loi de constitution ne leen yee ko wara appliquer ñu appliquer ko ni ñu ko wara appliquer bis buñ ñu ko teggee fii amatuñu suñu respect monsieur le président de l'union des magistrats génn fi mbeur mbeur mbeur di wax naan day menacer nit ñi amatu leen suñu respect parce que respecté wu leen ñu parce que respectat dafa mutuel dégg naa nag gannaaw bi Pape euh, Ousmane Sakho defee Pape Omar Sakho defee heureusement que Ousmane sax new ci bi mu defee njombeem ba pare dégg naa Serigne Bassirou lay ngem lay waajal fi mu ne nii pour mu dem valider la forfaiture de 2024 magistrat yi laa bëgg a waxal delloo seen xel du ngeen yàlla du ngeen yonent ay nit kese ngeen mënuñu saa yu Sénégal nekkee ci guuta benn magistrat lay doon bu dee procureur benn magistrat lay doon bu dee doyen des juges wala groupe magistrat lay doon bu conseil constitutionnel wala cour suprême boo leen dajalewoon ñoom ñëpp matuñu fukk saa su réew mi waree tàkk ñoo ñoo koy est-ce que loolu mën nañ ko continuer nangu au nom de quoi des avantages yi leen Macky di jox ñu wax leen ko c'est pas une menace c'est une promesse

waye na dajale sénégalais yépp ñu waxtaan nag te waxtaan boobu dana leen ci garal tam lan moy doon agenda bi ci at yi di ci weer yi di ñëw kooku ku bëgg jamm moko bëgg moo def musuñu ñoo gis manifestation buñu autoriser problème am fi amul saa problème amé manifestation bu autoriser autorisé wul la te moyens ngay déployer pour né da ngay téré manifestation moyens nga pour encadrer manifestation tout le monde ko kon manipulation def de monter vidéos, vidéo ñëw naan waaw kii wax yow di policier ces vidéos, vidéo demal sénégalais la mi ngi demal nga fi nga ay Khalifa lan ngeen ci manipulation yi ñuy def foog ni mun nañu jouer ci conscience su ndaw ñi naan leen yéenay seen chair à canon su ngeen fa dee it yéen perte ñoom seen doom ñun suñuy doom fii la ñu ne ci dëkk bi di